asalaamaaleykum suñu mbokki internautes yi nga xam ne yéen a safoo ànd ak ñun saa su ne seen dundin ak seen nekkin comme nuñ koy faral di ko defee bés bu ne di siiwal di feeñal ak borom ak boroom xam-xam fépp fu mun a nekk ci biir réew mi tey am nañ contentement ak mbégte beneen yoon dalal laat kilifa boroom xam-xam bu kenn dul naa ñaankatu yàlla bu ñu ràññee ci biir ak ci biti réew mi ku yàlla jagleel ci wàllu faj ak mbirum garab ñu gën ko xam si docteur Baye Mass Cissé docteur Baye Mass Cissé nuyu nañ la. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah sang bi ñu ngi leen di ziare bu baax eh, di leen datagal di leen ñaanal di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah eh, ñi ngi sant eh, ñu ñëwaatee fii mooy émission yi ñu def yëpp pour yàlla yi rek dimbale leen wax dañoo waxoon ne ñun ñoo opté métier bi opté bi ñu ko opté rek pour dimbale jaamu yàlla yi moo tax te comme ñu ngi koy def di ci am résultat saa suñ ci defee émission nit ñi dañuy woo fu ne suñ ñu gëj a dégg saa wax ñu ne dañ leen gëj a gis ngeen def ci émission moo tax ñun tam lépp lu si nit ñi bëgg rek noonu lañ ci def ndax njëriñu doomu aadama ndax jafe-jafe yi bëri nañ feebar yi nañ te nit ñi xamuñ fi ñu jëm alhamdulilah. macha allah docteur Baye Mir Cissé amaat nañ contentement ak mbégte beneen yoon dalalaat la fii suñu chaîne Dakar People daanaka comme niñ ko faral di ko defee pour am ak yow waxtaan laa ak tontu waxtaanee xam-xam waxtaanee pàcc su bëri ci mbiru xam tey bëgg naa émission bi ñu def ko benn émission bu xaw a spécial bu xaw a particulier ñëw ci mbiru jafe-jafe yi nga xam ne maanaam jàngoro yi garab yi ak li koy saafaral mais balaa ñoo tàmbali loolu rek sëriñ bi bëgg naa tuuti ñu dugg ci mbiru asraar ndaxte ku la xam-xam ne kilifa nga borom xam-xam nga sunu borom defal na la may na la loxo bu gudd macha allah ci mbirum ñaan te xam-xamu asraar nekk tey jii lu yaatoo yaatu te jamono ji ñu toll nekk na jamono xat jamono def-def. sëriñ bi boo ñu doon wax ci tënk ak leeral rek njëriñal asraar ci tolluwaay réew mi. waaw alhamdulilah ñaan yàlla lu am solo la ndax euh, nit ku leen a gëwuma ñaan sax ragal ko ndax li la war a xamal ne nit ñëpp gëm nañ ñaan mooy génnal fajar rek julli fajar génn nga gis nit ñi ñu ngi saraxe donc tey te nit ki buy saraxe rek am na tegtal buñ ñu koy wax na ko def ko mbon nga fi nekkoon na bu yàgg ba léegi moo fi nekk waaye mbon googu li koy dindi ba léegi mu ngi ndax da ngay gis nit nekk ci barab ñu xabtal ko wala ñu dëjjate ko fa yëgate ko fa gis nit toog ci barab ñu korte ko donc loolu noonu li yëpp tey li koy dindi mu fi moom donc dangay gis ne jëf jun woon ñi nga xam ne ñoo fi nekkee di def lu bon lu bon loolu li koy dindi fi te am na tegtal yoo xamante ni nit ki su ko jëlee ci kàttanu suñu borom képp ku ko sànni liggéey liggéey bi dina këpp dellu ci moom wala képp ku la sànni liggéey dina la ko moom donc am na barab yoo xam ne boo fa nekkee tey am na loo xam ne suñ la ko defalee ci kàttanu suñu borom incha allah rabbi doomu aadama mun la fa jëlee te nit ñi danañ la sax bon donc dafa bëri loo xam ne ndimbalal jàmm yàlla yi la bon donc tey mbon googu am fa mbaax gi rek mu fi am ba léegi ñun nag ci nit ñi jëfandikoo lu bëri mooy dimbali jaamu yàlla yi nekk ci barab bañ ku leen fa dimbale bañ ko jëlee ak jaamu yi nga xam ne dañuy bañ ko leen lor ak ñi nga xam ne dañoo am seen i njaboot ba pare bañ ko leen féele seen njaboot ak ñi am seen soxna bañ ko leen féele seen soxna dañ leen defal tegtal yoo xamante ni suñu borom dana leen defal dimbale ba diggante bi du am jafe-jafe wala nit ki nga xam ne dafa am sëyam dafa am rëng-rëng wala nit ki xam ne waral mooy ku jigéen ki mooy ku góor ki danañ la defal liggéey loo xamante ni ci wàllu nopp ci kàttanu suñu borom sëy boobu dootu yëngatu ba ilaayum diini te am nañ ci tegtal wér ndax nag lii waral li ëpp loolu rek mooy ñu bari ñooy yàq diggante yi diggante nit ak nit ni muy sëy ak jëkkëram wala ngi sëy ak jabaram nga ne fexe naa fexe tas ko wala ma xabtal jëkkër yi wala ma xabtal jabar ji ba duñ nekk si jàmm loolu nag ñun si lañ taxaw ba dindi ko loolu képp ku nekk ci jafe-jafe boobu ñun mën nañ la dimbale ba loolu dañ incha allah rabbi macha allah docteur May si docteur Baye Ma Cissé leer li am na solo trop yaakaar na ñaan yàlla nekk na tey jii lu ama am solo donc jamono ju nekk nekk na jamono xat-xat jamono def-def donc njëriñal ñaan yàlla nekk na lu ama am solo te képp kuy jaam nekk ci kaw suuf yaakaar na war nga mun a gànnaayoo mbiru ñaan yàlla ndaxte ñaan yàlla daanaka bawul dara sëriñ bi bu ñu paree ci loolu bëgg naa comme nu ma ko waxee ca njëlbeen lu dugg ci jàngoro yi ndaxte bëri na fii ci réew mi jàngoro yi nga xam ne dafa nekk gàllankoor ci jaamu yàlla yu bëri te tey jii daanaka mun nañ ne dem nañ fu ne tey jii dem nañ fu ne pour jangoro yooyu saafaru mais mu nekk tey jii li nga xam ne day day day xaw a doon li nga xam ne daf leen di daf leen di indil ay jafe-jafe ay gàllankoor dem nañ sax ba découragé yaakaar ne dootuñu wér te tey jii képp ku la xam ci mbiru garab xam ne sunu borom defal na la ci tegtal yu kawe kawe kawe ba képp koo jëflanteel xam yaakaar naa ci jàngoro yi ñu nar a cité sunu borom dina ko defal tawféex tey xam naa jàngoro bu ma bu ma bëgg bu ma bëgg njëkkee mooy mbirum hémorroïde internet bi ak externe bi parce que daanaka sonal na ñu baree baree baree. alhamdulilah hémorroïde képp koo xam ne sa liggéey ci wàllu toogaay la rek forcé mu sonal la. Euh, donc képp ku ko am nag moo xam externe la wala interne bi am ñun mën nañ la dimbale ba mu wér damay wax ne ñun yàlla jox nañu loo xam ne joxut ko benn mi def ñun africain ñun jullit ndax nag garabi olof yi ñuy wax tubaab kéréwu benn garab sa yàgg na ko wax fexe nañ ba ndax ñi ci rek mais benn garab te lii maam yi bawoon fi moo fi nekk moo wér mooy dëgg te ñun nag gëm nañ ne solution bi fii la nekk ci kaw yi ci ñun bépp malade bu neen mën a indi buru dee ñun mën nañ la faj ci kàttan suñu borom hémorroïde nag moom kooku moom ak bu mën a doon rek boo ñëwee ñu faj la ko moo xam picc bi la wala ballonnement bi te nga xam ne am na hémorroïde ballonnement bi nag ndax dañ ne dama ñaar moo am mooy nit ki su amee problème mu deret wala mu am problème mu biir na am nag su fekkee tey dafay lekk te du dem cabine rek bu yàggi borom mën na am problème te nit ki mën na a dem ba gudd fan ndax moo yor doomu aadama bon da ngay gis ne lekk buy lekk dem te dara ñëw rek ba amee dem te dara ñëw génn rek am problème léegi nag loolu mooy dama yàgg mu def la hémorroïde mu am picc bi ci biir picc bi dem ba génn ci biti ba pare ballonnement nga di sooy lekk da géex da gis ne da ngay tayal sa biir dafay def ballonnement doo mën a téye ngelaw euh, njàpp yooyu yëpp imurum bi daf koy def te bu mënta doon ñun bu ñëwee incha allah nañ la dimbala faj la ko moom wér leer li am na solo trop daanaka comme ni ma ko waxee bëgg naa ñu jël bu si nekk jàngoro par jàngoro yu ñu mën a tiir rek yaakaar naa si tënk rek nga indil ñu si bu nekk li kay waral ak tey jii lan moo koy saafaral xam naa bu ñu paree ci mbiru hémorroïde interne ak externe bëgg naa tuuti nga ñëwal ma tamit ci wàllu éjaculation précoce parce que tamit nekk na gàllankoor. waaye éjaculation précoce euh, ñun am nañ ci garab yoo xam ne da koy faj définitivement am nañ ci garab yoo xamante ni képp koo xam ne day am wàllu ngóora bu ngóora bu mën a doon moo xam sa érection bi du dëkkër moo xam booy sëy du yàgg si moo xam tey sa sa awra bi dafay nooyee ak bu mën a doon rek dañ la koy faj définitivement mu dañ te rek teg lañ la koy faj kooku amul jëkk sàkk am nañ ci garab yu wér te garab yi danañ la wan nan lañ koy liggéey incha allah rabbi tey lépp luy wàllu néew kàttan bii moo koy faj garab la boo xamante ni garab bu wér la garab ay garab naturel lañ ko defaree bon donc da ngay gis ne euh, yàlla éjaculation tey bëri na tey kër yoo xam ne am na jafe-jafe li ko indi mooy lool ndax ñaar moo am ni góor gi daa amee problème éjaculation noonu la jigéen gi de am jigéen boo xam ne du yëg boppam léegi nag calculer jigéen bi nekk ci këram yëgul boppam ba pare góor gi ba pare góor gi moom te am problème éjaculation est ce que kër googu mun na neex te nag danaa la xamal benn xel quatre-vingt-quinze pour africain yëpp problème boobu am nañu léegi da nga daan gis ne nit ki danaan dem ba am quarante cinq ans soixante ans di am problème sëy léegi xale bi am vingt ans dix-huit am problème sëy dañ koy jox soxna pour mu mën a yegg ci moom sa problème loolu lu bari la ñu ngi koy nëbbu te ko war a wax nag faj ko mu wér ndax solution baa ngi fi am na waaw si leçon banque bi am na te ku ñun ku fi ñëw ñu faj la ba nga wér moo xam jigéen bi nga xamante ni du gis euh, yëg boppam moo xam góor bi nga xam ne dafa problème mu éjaculation bu mën a doon nag bu ñëwee ñu ne faj ko allah. macha allah docteur Baye Massis leeral yi am na solo trop xam naa bu ñu paree ci éjaculation précoce tamit bëgg naa tuuti nga ñëwal ma ci mbirum ndoxum siti ak prostate tamit ñaar yooyu noonu tamit faral na ne nekk ci gàllankoor faral na indi jafe-jafe yu bare bare bare bare ci ci jaamu yàlla yi. waaw ndoxu siti ni muy gàllankooree ku góor noonu la gàllankooree ku jigéen da nga gis na ndoxu siti dana xasan sa yaram mën na indi karaas mën na leen heure mën indi kurobët mën na indi sa bi di tàng di tayal da nga gis ne sa bopp bi kawar kawar gi di dagg di ruus da nga gis ne dee ku jigéen ki na mën na indi trompe yu buuse mën na indi kanam kuy xeeñ mën na la indi problème doo yëg sa bopp mën na la indi problème am doom mën na la indi problème nga énervé wu donc ndox si dafa nekk loo xamante ni lu danger li góor noonu la danger a xam ne mën dafa xamante ni pour mën a former am doom dootul mën a da nga gis ne jafe-jafe ndox si toon ba am ñoo xam ne dafay dàllee ko seen yaram def ay góom wala ay picc ñun nag bu mu a doon ci àdduna bu ñuy faj ko ba wér ci kàttan suñu borom waaw prostate dafa am ñaar waaw prostate dafa am bu tijjee ko am bu tëju bi nga xam ne suñu borom ay mbiram dafa kéemaane da nga gis ne nit ki buy jotee soxnaam prostate bi mooy tëj saw bi maniw bi génn bu fekkee dafay saw prostate bi mooy tëj saw bi mooy tëj maniw bi saw bi génn xoolal loolu suñ borom kéemaan boobu mu def kon da nga gis nit ki bu am problème prostate boobu rek bu tijjee ko rek mën am jafe-jafe ndax da nga gis ne saw acide la te maniw bi dafay forme ji leneen loo xamante ni dafay produire kon ñoom ñaar mënut ànd bu maniw bi génn rek prostate bi dafay tëj saw bi bu bu saw bi génn prostate bi dafay tëj maniw bi da ngay da ngay gis ne ñi am problème boobu prostate na dafa am tijjeeku am bu tëju bu tijjeeku mooy ki nga xam ne borom mënta dee njàpp heure bu nekk rek buy saw mu ngi toq bu yéex a rek li am nga xam ne chaque yaa ngi saf saw mais doo dem pour nga saw da ngeen problème ñun nag fu ci mën a dem su ñëwee incha allah danañ la ko faj garab yi yi maam yi bàyyin fi moo fi nekk te moo fi wér tubaab yi yoruñ dara lu wér calmant lañ yor loo xam ne luñ la jox bu la fajee suba mu feebar leneen garab yi moo fi nekk te moo wér te ñun suñ ko gëmul nag ñun ñu ngi perte suñu bopp ndax tubaab yi ñoo nañ ba fii ci Afrique di jël suñu garab yi di ko yóbbu di ko jëriñu ñun ñu nekk fii te mënuñu jëriñu li ñu yor loolu nañ génn ci loolu te xam ne cosaan solution bi mu ngi fii alhamdulilah. sëriñ bi wax nga léegi lu am solo tamit dama bëgg na bëgg naa tamit nga ñëwal ma ci tey jii li nga xam ne ñun nga xam ne comme li nga ko waxee garab yi nga xam ne suñu maam yi bàyyi nañ fi nekk na ay garab yu bëri ay ferñeent daanaka bawul dara bépp bépp buy jàngoro rek dinañ ko dina ko saafaraal mais tey jii dañu gis ni ñun fii suñu réew yi Afrique rawatina Sénégal gars yi noonu trop médecine traditionnelle bi médecine occidentale bi lañu war lañ gën a gën tey jii lan mooy inconvénient yi nga xam ne tey jii moo waral tey jii ñu bëri gën a wóolu médecine moderne bàyyi fi médecine traditionnelle alors que tey jii daanaka comme ni nga ko waxee dañuy gis ni tubaab yi danañ ñëw fii nii jëfandikoo jël suñuy garab dem transformé waat ko ñëw ñëwaat di ñu ko jaay te daanaka bu ñu xoolee source ba suñu suñu garab yi rek lañ demoon daggee ñëw indiwaat. dañ lay tënkal rek nga gis na fii donc tey lii papaay lañ ko defee lii karosol lañ ko defee da gis na papaay bii nii grain bi moo tey mooy grain bi nga xam ne tey li gën tey booy lekk papaay yaa ngi sànni grain bi te grain boobu dafa lay dindi disere day dindi ballonnement day dindi virus day dindi tension day wàcc tension day wàcc euh, biir buy métti lépp luy toxique ci biir daf koy dindi doom bii nii da nga gis ne xob bii nii tey day dindi prostate day dindi euh, ballonnement day dindi hémorroïde donc day fajaale virus bu mën a doon ci àdduna bon donc da nga gis ne lii nii tey ñun ñu koy lekk di ko sànni bon papaye amul lu amul njëriñ du ren ba ndax papaye am na vitamine C am vitamine A am vitamine E ba pare amaat calcium ci biir bon tout loolu noonu da doomu aadama soxla ci yaramam nga ñëw fii ci laaj bii nii laaj da nga gis ne laaj a ngi nii gis ne ñëpp xam nañ laaj li mu njëriñ mooy antibiotique la bëri na tubaab bi lu bëri seen garab si moom lañ ko def nii lii nii tey lu ne lañ ci bu lañ ci faj ñun léegi soo ñëwee ñu ne la garab yu olof yi boo ko naanee da nga am bi dañuy ñëw fii ñi ngi installé fii suñu dëkk bi di bay suñu garab yi ko yóbbu ko transformé di ñu jaay ba pare ñun ñu toog fii bépp conseil moom bu amul local boo xam ne local maanaam dafa am chimique dafa peut-être bu jëkkoon li pour li tax mooy si la première fois nga gis Sénégal fii ñu ne trombose am na fi ñun ñu bëri nii tey ci documentaire ngeen noo xamee thrombose léegi ñu ne thrombose am na fi lan moo ko indi lekk yi dafa am dafa am dafa am dafa am chimique léegi nit ki bu fekkee dafa am poids ubbeeku yaatu mu am poids dafay dem ba am problème calcium mooy dafa am problème yu yàq problème dafa am problème deret ji dafa dootu circuler dégg nga da nga gis ne tey poids boobu day nit ki su xasee am 100 kilos jëm 200 kilos rek mun na am problème thrombose trombose moom si tubaab bi lañ koy gisee tubaab bi lan la duñ lekk lekk naturel ñun lekk cosaan lañ amoon yu naturel yoo xamante ni duñu am benn jafe-jafe feebar yi ngay dégg léegi lépp loolu mooy yow mii di lekk li ngay lekk xamoo ko lekk boo teg fii nii tey togg ko teg dëpp ko tey huit heures boo ko tijjee moo xëy léegi nag ñun nañ dellu ci cosaan bi nga xamante ni mooy lu wér lii moo ñuy wéral te mooy dëgg tubaab bi dañ ñu fi nax rek lii di moringa tey boo demee ci Occident àdduna bi yëpp yëpp yëpp reconnaître nañ ne. bëgg naa nga ñëwal ma ci moringa parce que dafa mel ni dafa am ay ferñeent yu xaw a particulier daanaka moringa foo natt baaxaayam ak njëriñam rek weesu na foofu garab moringa bi tey ji lan lan la lamboo sëriñ bi. da gis ne lii tubaab bi tey àdduna bi foo mën a dem ci àdduna bi rek tubaab bi tey autorisé nañ ko nit ñaa ngi koy jaay foofu yor ko bitiki traditionnel te traditionnel bi wax ni tubaab bi léegi ñoom ñoo ci gën a yow gën ci xarañ tey da ngay am vitamine A am calcium am magnésium am potassium moringa dafa faj prostate day faj tension day leeral bët day dindi trompe yi bouché day dindi tension donc day faj éjaculation day jigéen bi nga xam ne douleur ragalam daf koy dindi ci nga xamante ni dafa am problème bët gis gis-gis tey daf koy dindi tey bëri na loo xam ne tey moringa da ko fi calculer tey ñu ne vitamine C boobu nekk si orange tey moringa amee na ko ëppal na ko 7 pour cent léegi nga dégg ñu ne la tey vitamine A carotte pour vision mooy leeral bët moo ngaa appee ne ko 4 pour cent nga dem ñu ne calcium meew dégg nga nga demaat tey ñu ne potassium ñu ne protéine ñu ne fer loolu yëpp amu ko yeneen garab yi loolu nañ tey garab bi ko am ñu ne la tey sa foo boo ko lekkee tey da am insuffisance rénale loolu niñ ñi suñ xel yi tubaab bi ñu ngi nax gis nga tey li la ko war a xamal mooy covid baa ngi nii ñoo am moyen bi ñoo am alal ji ba léegi tey lañ gën a am problème te Afrique ngi nii ñu ngi ci jàmm bon ñun suñu borom teral nañi nañ gëm suñu bopp te lii nii solution bi balaa muy am mooy garab yi olof yi mooy solution bi tam mooy wéral nit ñi te moo fi nag macha allah docteur Baye Ma Cissé leeral yi am na solo trop macha allah daanaka comme ni nga ko ni nga ko waxee rek daanaka nañu gën a delluwaat gën a dooleel gën a gën a yëkkati suñu médecine traditionnelle bi ndaxte daanaka médecine bi bawul dara te lu fi suñu maam yi bàyyi woon la te nekk na tey jii lu wér a wér a wér sëriñ bi bu ñu paree ci loolu bëgg naa tuuti ñu tuuti ci jàngoro yi parce que tamit am na jàngoro bu nga xam ne damay faral di ko dégg te ñu bëri dañ koy dégg mais daanaka seen xam-xam màcc ci lool lool lool muy mbiru fibrom ana yan leeral nga ñu mën a indi ci fibrom tey jii tamit ki nga xam ne dem na ba suñu borom nattoo ko jàngoro bi ñu naan fibrom ana yan mooy ana yan mooy jaaruwaay yi tey jii ana yan tegtal la war a def pour sunu borom mun ko ko saafaral lépp lépp di nga xam ne comme niñ ko nekk di ko waxee di déroulé émission bi ci wàllu médecine mag ñi dañ daan wax xale bu jigéen bi nga xam ne am na 30 ans du ko sëy mooy am soccet mais fii borom léegi nga commencé at yi nga commencé dégg la seen panalyse bi ñuy def nag mais tey li nga xam ne suñu borom moo ko programme deret bi war a ñëw soo amul benn ngànt ëmboo mu war a ñëw ñëwut problème boobu danga ko am panalyse boobu moo leen di indi wér ndax benn képp jigéen bu koy def benn nga am poids boo xam ne mosoo ko yor poids di nga jël poids boo xam ne bokk ci yow te nit ki su jëlee poids boo xam ne bokk ci moom rek mun am problème kër nit ki wala nga mu commencé jeex te jaaxal boo la commencé jeexal rek mu ngi commencé def animé yaa ngi commencé animé yaa ngi commencé perdre poids yaa ngi commencé euh, nekk ni ko xam sa énergie yi mu ngi jëm donc da nga gis ne tey analyse boobu noonu li ëpp moo indi fi borom te ñi muñ ko wax nañ ko wax te dee loolu moo fi nekk moo indi loolu nag wax ma jigéen bépp jigéen boo xam ne mu ngi koy def benn mu ngi jël poids am képp jigéen boo gis moo koy def mu ngi jël poids boo xam ne moomut ko wala yaramam mu ngi wàññeeku léegi nag cosaan am na mag ñi daan nañ def tegtal yoo xam ne te ba léegi mu ngi am ñun am nañ ko sax tegtal yoo xam ne nit ki su amee doom da koy takk sër bu ko tekkee doo ko am doom mag ñi daan nañ wax ne tam nit ki bu fekkee jigéen bi mu ngi nampal normal ni mu nampalee dana gis ragal normal te du ëmb fekk parewu nàmpal mais loolu defatuñ ko ndax sa doom léegi bu juddoo nga dem ci la rek bay jox ko mu commencé lekk doo ko jox dugub te xale bi nga bëgg mu wér ba pare du xiiboon yaa xam dina baax bu juddoo ba commencé lekk jox ko dugub ñett yi képp ku ko jox sa doom du xiiboon te daam yax te dina baax mooy jox booleel dugub ak ñebbe ak mboq nga wal ko sunguf di ko def laax di ko jox sa doom mais léegi xale yi dundatuñu mais xiiboon da ngay demal ci hôpital yi xale yi juddu bees ak nga fekk vingt quatre heures vingt quatre ñi rang fa mais lu waral loolu tey la moyen bi gën a tey la mais nañ delluwaat ci cosaan bi xam na moo fi nekk loolu mooy li wér nañ ko wax. macha allah docteur Baye Mass Ciss leeral yi am na solo trop comme daanaka. daanaka su ma la déggee à chaque fois suñu problème yi nga xam ne ñu ngi koy am jafe-jafe dara warlu ko lu dul tey fii bàyyi fi secret yi nga xam ne suñu maam yi moom lañ ñu joxoon donc comme ça su nu ma koy waxee rek nañu retourner aux sources delluwaat ci valeurs yi delluwaat fi li nga xam ne suñu maam yi ñoom la fi bàyyi woon ndaxte daanaka loolu mooy njëriñ te loolooy jëriñ sëriñ bi bu ñu paree ci mbiru fibron tamit bëgg naa tamit ñu ñëw tuuti ci wàllu acte rose acte rose boobu tamit nekk na jafe-jafe tamit daa fu mel ni tamit jamono yu ñu toll tamit day faral di nekk gàllankoor lu baree baree baree bare te daanaka comme mbiru fibrome la rek bañ ko faralee di gis yàggul. waaw arthrose ak hernie sciatique euh, nekk na loo xam ne bëri na bu jàkkoon sax ci mag lañ ko daan gis léegi xale sax dañ ko am hernie sciatique boo ko déggee mooy sidit bi dafay congé deret du circulé arthrose affaire lu yàq la. Euh, yax la dafay dem bu fekkee dafa ñëw ci articulation yi da ngay gis ne liquide bi dafay dem ba wàññeeku nga gis ne boo defee ni muy yëngatu donc yax bi di lekk léegi nag am na yenn vitamine li ma la wax léegi rek mooy produit chimique yi ñu lekk nii loolu da nga gis ne loolu ak naani local naani chimique yi ñuy naan nii da nga gis ne loolu mun la jox benn vitamine donc da nga gis ne garab yi ma wax la fii yëpp ñu rancale fii bu si ne am na vitamine bi doomu aadama soxla ndax doomu aadama lii rek la soxla si yaramam mooy naam calcium naam potassium naam magnésium naam vitamine C vitamine A vitamine E loolu bu nit ki amee si yaramam amul problème organam yëpp dafay dox normal da nga gis ne nit ki nga xam ne xam nga doomu aadama dafa am macrophage am am am euh, euh, globule blanc ak globule rouge tey boo lekkee lekk boo xam ne toxique la macrophage boobu moom mooy jël xeex ak microbe boobu noonu pour ray ko bare yóbbu ko li nekk saw li nekk dem nekk li ne li nekk nag ginnaaw kër donc microbe léegi nag bu fekkee yow li ngay lekk nag dafa ëpp ci ci chimique macrophage boobu nga xam ne mooy xeex ak toxique bu nekk sa yaram dafay dem moomantoon dafay néew doole bon ñun nañ dellu ci cosaan bi ma la léegi rek da gis ne tey lépp luy dëñ la tey da nga gis ne asthmatique tey bëri na koo xam ne tey da koy am asma ñaari fan ñetti fan demal ci xale yi xale boo gis muy am pompe te pourtant solution am na sungu bii ñuy defar ko benn garab doom la bu nekk ci àll bi nga xam ne nawet la am ñu wal ko def ko café wallahi pompe boo ko amee asma boo mën a am ñun lañ la koy faj ba mu wér gis ne pon cosaan boobu ñu bàyyi ko te pourtant tubaab yaa ngi ko jël fii di ko yóbbu ñun ñu tukki di dem ñoo xam nañ ci lu bëri tubaab bi ñi ngi jël suñu garab yi dem di ko déformer di ko defar di ci jël seen produit chimique yi jox ñu ko wan ne moo baax génnal nga dem ban lekk nga fi gis bu naturel boo xam ne xam nañ ko xam nañ ko defaree buyang fi bisaabang fi jinjarang fi karasolang fi màngoom fi lépp nga mën see defar si naan mais yow gëmoon lii nga xam ne sa dëkk am na ko sa cosaan am na ko da ngay dem jëggaan moo tax wér bi tey la moyen am tey la gën a am ji bu jakkoon maam bu jakkoon maam ñi su fekk problème amaan bu jakkoon da ngay gis ne bu jakkoon tey la moyen gën a am demal hôpital sa soxna bu ëmbee tey nga gën am jafe-jafe bu jakkoon mag ñi da xale bi nit ki daraan jigéen bi danaan ëmb ñi ne xale bi dafa làkk wala dafa suufee mag ñi dañ koy mocc léegi mu dellu fa mu waroon nekk mag ñi ñoo daan for jamono sensé na nag mais xoolal tey ñaata ordonnance lañ jëndal ëpp ci neuf mois yi te jour bi akku ci di waaj a nañ dellu suñ cosaan waxuñ ne hôpital yi baaxut gëm nañ ko ñun carrément dañuy faju hôpital dañu ne hôpital waaye nag suñ cosaan li nañ ko jël boole ko lu baax li te loolu moo fi nekk. macha allah docteur Baye Massis leeral yi am na solo trop xam naa dañuy continuer di jëlaat ci. jàngoro yooyu rek nga xam ne moom moo faral di nekk jafe-jafe naa bu ñu paree ci acte rose naa ñëw tuuti ci goitre mbiru goitre bi tamit goitre luy saafara bi sëriñ bi. waaw goitre li koy indi mooy li ëpp jigéen lay dal li tax muy dal jigéen mooy jigéen dafa bëgg dafa bëri stress mooy problème dafa yomb dafa yomb problème moo tax li ëpp jigéen lay dal euh, loolu moo tax goitre fii lay nekk xam na ñoo xam dafay dem ba jàpp sa bëti ba du mën a xool sax lumière da boo xam dafay génne sa bëti am ñoo xam ne sa bolet bi lay génne ñun nag yàlla dimbale nañ boitu ci lu néew lañ koy faj loo xam ne amul dara ci laaj kese la ñuy faj goitu ba mu yor bon donc da ngay gis ne tey te nag tey da ngay gis ne tey nit ki nga xam ne am na ko ñi ko faj ci loolu nga xam ne amul benn effet da gis ne laaj antibiotique la dañ koy faj ci laaj ak lem ak ci ndoxu géej ñun nii la ñuy faj laaj fii la ñuy faj goitu ba mu tër kak te boroom du am benn jafe-jafe mais xoolal tey li ñu yàlla may moo tax xam-xam lu am la nañ gëstu parce que dem science lañuy tubaab yi naxee indi ñi fii tubaab kereegul benn garab lii mooy dëgg ji te mooy cosaan bi képp ku koy jël di nga wér te feebar boo mën a am nag solution bi fii la nekk soo gëmee yaa xam boo gëmul yaa xam waaye fii la solution bi nekk. na solo trop waxtaan bi mu ngi bëgg gudd te waxtu nekk na li nga xam ne daf la tënk mais docteur Baye Mass mënuñu la seet si te ñaari jàngoro yi duñ ko laal muy mbiru hépatite B ak asthme daanaka dafa mel ni dañ ci commencé gis solution parce que daanaka jàngoro yi mu ngi commencé wàññeeku si lu ma si si li ma jàpp. waaw alhamdulilah euh, asthmatique nag euh, mun ñun si lii lañ koy liggéey lii benn garab la boo xam ne nawet lay am ñu doom yi saaf ko def ko café di ko jox xale bu même xale bi juddu am un mois sax mën na ko naan ndax oyof na amul benn dose boo xam ne bu garaaw la te képp koo xam ne yaa ngi am asthmatique bu mën a doon nag donte dañ laa jox pompe bi bu la neexee boo ñëwee ñu la sànnil pompe bi da ngay wér loolu yàlla may ñu ko te jagleel la euh, hépatite B boobu ngay wax nag ñun gëm nañ ne suñu jagleel la yàlla ñu ko may damay wax na ñun feebar faj don la si ñun jàng nañ ko gaa mais don la si ñun suñ borom moo ñuy jagleel don boobu noonu te nangu nañ ko te suñ ba ñu ngi ci sant yàlla fu ne ci àdduna bi nag ñu ngi ciy dimbal jaamu yàlla ndax nag hépatite B dama wax ne lu dansé la dansé na dansé wut malade la boo xam ne buy màgg doo ko gis malade la boo xam ne bu lay dal doo xam kañ la la dal malade la boo xamante ni soo ko faju mën a dem ba jural la cancer waaye malade la boo xam ne boo ko fajee mu wér malade la boo xam ne am na lekk yi muy bañ am na naan yi muy bañ léegi nag lii nag rek kii ko kim dal man bu ko xamul rek mën na ko indi jafe-jafe moo ci dansé bi ñuy wax li tax ma ne amul danger mooy boo ko fajee di nga wér ndax man dàq naa feebar bu du wér bépp feebar man gëm naa ne bu du dee rek dafay wér léegi nag hépatite B nag ni muy ñëwee nit ki nit ki mën na ko bañ a xam dafay dem hôpital rek def analyse deret wala mu doon mayee deret rek ñu ne ko am nga ko donc moom mënut a xam fu ko jëlee ndax mun na dagg ci lamset léegi lamset boobu deret nit mën na dagg ci lamset dagg ci weyam deretam génn ci moom mu dagg ci deret boobu dugg ko mu am ko pikir mën na ko jëlee ci pikir mën na ko jëlee ci soxnaam mën na ko jëlee bu dee jigéen mën na ko jëlee ci jëkkëram donc tey mën na ko jëlee ci virus boo xam ne kaas bu mu naan teg la virus la boo xam ne dafay wàlle buy wàlle nit doo ko xam waaye nag dafay màgg te duy màgg doo ko xam ndax donc donc nga dem tey def analyse ñu ne la ah, virus bi mu ngi ci taux bii suba nga dem ñu ne la wàcc ginnaaw suba ñu ne la donc nag bon nit ki li may dénk képp ku ko am demal faju ji ñun fépp te bee képp ku ko am boo ñëwee fii ñu faj la ko ba mu wér dëggal nañ ko suñ bopp te yàgg nañ ko wax lu ma juróom benn at ñu ngi koy wax nit mosu ñu ci kalaamee amul benn site bu la mos a wax ne docteur Baye si Cissé nit jël na xaalisam jël na xaalisam nit si hépatite B lekk ko te gisu ci résultat du am du am ba ilaa ne bépp malade bu ñu la soulignal fii nit du la mos a wax na la jël ndax li ñuy def ne luñ xam la lu wër la te dañ ci am résultat léegi nag solution baa ngi fii ku gëm boo ñëwee ñu dimbale koo xamante ni nag danga gëm na yow garabu olof mënu laa wéral kooku yow la waaye ñun gëm nañ ko ndax ñun ñii di waxal yow xam bi xàmmee ko ba bi ñu am vingt cinq ans piqûre mosu dugg suñu yaram ñu ngi koo sante yàlla nag ak sante ko suñu wajur ndax moo ñu tàggat ci cosaanu garab yii ba ñu xam ko bëgg ko nampatal ñu si ñun tam ñu màgg ci di ci nampatal suñu doom ak ñi nga xam ne wóolu nañ ñi macha allah docteur Baye Mass Cissé waxtaan bi am na solo trop macha allah daanaka comme ni ma ko waxee waxtu nekk na li nga xam ne daf la tënk mais balaa maa tàggatoo ak yow rek bëgg naa nga ñëwal ma tamit ci sa jagle bi nga xam ne maanaam am na fi benn secret boo xam ne bu kéemtaan bëggoon naa tamit nga feeñal ko muy au miracle bi nga xam ne vingt neuf maladies mu ngi koy saafaraal. waaw miracle bi. Eh, kinaay ñoo ñu ko laaj. moo tax sax ñi génn ko xam naa dañ ci naan may la nga naan ci lii vingt neuf maladies lay faj. donc dañ la wax nañ ko defaree clients yi ko yàggaa seetaan depuis naa an yi wane wuñ ko ndax heure bu nekk nit ñi lañu ko laaj ndax garab boo amatul mu ngi am ba léegi mu ngi nii garab la boo xam ne boo ko naan comme tutele vingt neuf maladies lay faj ci yaramam ci kàttanu suñ borom garab bi nag ki nga xamante ni lii mooy bi lii lañ ko liggéeyee mu ngi nii papaya avocat mu ngi nii karasol moringa ngéjaan lii lañ ko liggéeyee ak suñuy secret bopp alxuraan lii feebar bu mu mënta faj ci àdduna képp ku feebaru sax war nga ko mën a jël garab la boo xam ne moo tax li ma la na nag cosaan moo fi am ba léegi te mu ngi fi am gis nga lii mag ñi baxoon fi wàllu médecine traditionnelle képp ku isi jindi jubadi yaa jubadi waaye nag jubadi amut ci ndax lu wér moo fi am mag ñi baxuñ fi lu wérati mag ñi lépp luñ fi ba cosaan lu wér la ku ci ñëw indi tappale yaa tappale dama ne képp ku ko bëgg a jàng wala nga bëgg koo doon da nga koy jàngi loo jàngul doo doon sëriñam xam-xam dañ ko jàng am la tey nag suñu borom nag lim def ci cosaanu garab kenn xamul tey buñ noonu lañ téye fii mën nañ la téye fii sans garab garab bu su nekk buñ la waxee la muy jëriñ danga naan da ngay téye sa gémmiñ ne mosoo ko xam ñu ngi koy sant yàlla nag di wax ne waa axir daawaana walhamdulillahi rabbil alamin yàlla nekk njëriñ yaamu yàlla yi moo tax dong ñu koy def